di wax li nga xam ne moom moo fi xew fan yii nii mën nañoo wax ne tey Sénégal yëpp mi ngi ci choc mën nañoo wax ne tey Kaolack ñëpp ñu ngi ci choc mën nañoo wax également ne Medina bàyyi également mi ngi ci choc waaye gis nañ choc boobu noonu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp population Kaolack yëpp partagé nañ ko ak ñun moo tax mu oyof kii di suñu mbokk di suñu dëkkandoor ay Samba booy ñëw ko tuumaaluñ kenn waxuñ kenn moo ko faat mais ñi ko faire l'inconnu xamuñ leen ko jëf ju ñaaw jëf amul Ben sénégalais wala Ben africain wala ben nit bu ko rafetlu lool mom la dénoncer li tax ñukoy dénoncer nak moy dëkk bi di Medina Baye dafa mag, dafa mag d'une façon extraordinaire ndax mom rek moy dëkk bi nga Sénégal wala Afrique da nga ñëw fekk fi nationalités te ñoom ñëpp waxuñu ay nationalité yoo xam ne dañoo ñëw dal ci ay kër mais dañoo ñëw jënd seeni kër ci alentour yi Médina di fa jóge di julli si ci waxtu jumaa ji juróom di julli si fajar di julli si géeye te heure yooyu heure de crime lañ te kenn mënu leen ko aaye ndax seen yaakaar àddina ak àllaaxira fi la nekk kon nag ñooñ laaj nañ ñu sécuriser leen laaj nañ ñu jël suñuy matuwaay ci ñoom te loolu loolu nekkul ci suñu responsabilité ñun ci responsabilité kan la nekk ci responsabilité ñi ñuy yilif ci ñooñ lañ nekk donc Medina bàyyi mi ngi laaj xàqam Medina bàyyi mi ngi taxaw di laaj sécurité boo xam ne dana mën a aar ay dëkkandooram dana mën a aar ay population dana mën a aar njabootam ndax vraiment liñ fi dund fan yii métti na métti boo xam ne benn doomu aadama mënu koo nettali kenn mënul wax ndax ñëpp ñoo am choc Kaolack yëpp am choc Sénégal yëpp am choc mais ñu ngi interpellé di ñaan comme ni nga ko daan defee waxtu jot nañ jël Medina considéré ko beneen considération boo xam ne uute na ak biñ ko jàppee ndax tey boo ko xoolee li fi nekk ci population waxuma sax étranger yi mais Medina ni mu yaatoo te bu ma waxee Medina du bayal bi rek du alentour yi rek Medina Daar Rahmati la Medina Saam la Medina Fass Cheikh Tidiane la Medina coofag la Medina Makka Kawoon la foofu yëpp njabooti Medina ñoo fa dëkkee te ñoo ñëpp benn objectif lañ am buñ xëyee li leen itteel yëpp mooy naka la ñuy def ba dugg ci jumaa ji julli dugg ci jumaa ji julli boobu nag causé na causé na ay problèmes sécurité loolu ñu ngi ciy interpellé état bi. ñu ngi ñaan ñu jàppale ñu indil ñu fii poste police wala ñu indi ñu fii brigade gendarmerie boo xam dana mën a saytu dëkk bi dana mën a saytu population bi fi nekk lii am nag métti na trop waaye ñu ngi ñaan également tam justice def yoonam bañ mën a jàpp Samba yi nga xam ne ñoo jëf jëf ju ñaaw ji